بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفانا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الميامين نجوم المهتدين ورجوم المعتدين ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sante borom bi tabaraka wa taala sant ko ci xéewalam yu bari yu yaatu yu fasanti ko xéewalam yi nga xam ni làmmañ lott na ci di ko tudd wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuha di julli ci sang bu tedd bi sayiduna muhammad moom mi nga xam ni amul dara jariñ nit ci kaw suuf lu dul ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jàngale na ko te jëfe na ko amul dara tax a mucc ëllëg yowma alqiyaama lu dul ni sallallahu alayhi wa alihi wa na ko te jëfe na ko ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu julli ñu ci moom ak waa këram ak mbooleem ku soobu ci nahji sirat al mustaqima ila an yarisa allahu al wa man alayha mbokk yi tey su ñëw xutba tey allahu taala ñu ko fas ci benn tox boo xam ni euh, jàmbat yi bari na ci lool muy jullit ñu góor ñi ak jullit ñu jigéen ñi ku ci nekk mi ngi koy jàmbat ñu koy déglu bis bu jot ci biir kër yi kër yu bari tas ngir loolu njaboot yu bari dëddoo ngir loolu mbokk gu bari yàqu ngir loolu loolu mooy lan mooy problème mu miiraas gis naa ni problème mu miraas jafe-jafe la boo xam ni kër yu bari jaare nañ ci tas njaboot gu bari jaare nañ ci féewaloo te pourtant miraas li tax yàlla subhanahu wa taala yaxanal ko moo doonoon ginnaaw bi boroom kër gi walla kilifa gi génne àdduna yàlla organiser ko ginnaawam organisation boobu ko yàlla defal ginnaawam moo waroon a tax ba benn jafe-jafe warul woon am famille bi dañoo waroon a gën a déggoo njaboot gi dañoo waroon a gën a bëggante dañoo waroon a gën a tàppoo kon bu fekkee miraas jural nañu kër yi di tas njaboot yi di féewaloo war nañoo laaj ban miraas la ñuy miraas est que dëgg-dëgg ni yàlla digalee santaane ko ñu miraase ko la ñuy miraase wala rek dañuy miraas comme ni mu dëppoo ak suñu bakkan ak suñu coobare mbokk yi ñu bàyyi xel ni miraas dafa nekk loo xam ni dafa wuute ak mboolem digle yi yàlla digle ndax ëmpalewu leen nii borom bi tabaraka wa ci ni muy santaane ak ni muy teree àtte yépp da koy wàccee mujj malan maanaam du ko leeral du ko détaillé boo demee ci alquran bi ñu yàlla bëggee digal julli dafa wax rek yonent bi wa aqimu salaa na ngeen taxawal julli foofu la yem waaw ñaata julli lañ war a julli ci bis bi waaw julli tisbaar ñaata rakkaa la julli taakusaar ñaata rakkaa loolu yépp yàlla leeralu ko yàlla dafa digle rek julli bàyyi yonent bi nag loolu la ñu tuddee sunna mu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñëw leeral santaane bi ñu yàlla sant nan lañ ko war a defee boo demee ci koor boo demee ci aji màkka walillahi ala naasi xajjul bayti santaane yépp noonu la ko yàlla subhanahu wa taala di santaane da koy wax rek boyal ko yonent bi ñëw leeral ko waaye lii ñu bëgg waxtaane di miiraas nag ah lii moom ñor na yàlla ñor goo xam ni bu ñu sañoon a wax sax dana yooyu yonent bi lii moom kenn doyuma ci man dong dong maa ci doy sama bopp ba tax na maa koy def ni ma ko bëggee maa koy wax ni ma ko bëggee ñu doxale ko noonu mayuma ci xalaatu yonent bi mayuma ci xalaatu saxaaba mayuma ci xalaatu benn borom xam-xam miraas kay sama mbiru bopp la man yàlla maa koy tërale na ma ko bëggee ak na ma bëgg mu doxee ko loolu mbokk yi nekk mbir mu màgg boo xam ni boo demee ci aayaat yi borom bi tabaaraka wa taala ci suuratu nisaa buy wax ci wàllu miraas da koy tuddee wasiya yuusikumullahu mbokk yi xoolal alquran ni muy waxe ci wàllu miraas yuusikumullahu maanaam yàlla ngi leen di jox benn ndénkaane léegi na nga xalaat waa soo amoon sa waajur boo fonk mu dem ba tëdd ci lalu feebar di waa ja génn àdduna mun la doom nga ne ko naa mun la kaay nga ñëw mun laa man de wóolootu sama bopp waaye dafa am lu ma ñor lu ma la bëgg a dénk mbokk yi xoolal ndénkaane boobu ni muy rëy ci yow bu sa waajur génne àdduna faaw danga fexe ba def ko ndax ñu la waxee nga ni lii de sama waajur moo ma ko dénkoon yàlla subhaanahu wa taala nag ci niiraas daf ko tuddee ndénkaane yuusikumullahu man yàlla maa leen di jox ab ndénkaane bëgg ngeen sàmmal ma ko yàlla ni bëgg naa nit ki bu génne àdduna alalam ngeen taxawaloon ma ko nii li rijaali nasibum mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun walinnisaai nasibum mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun mimma qalla minhu aw kasur nasuba nasiban mafruda yàlla na ku génn àdduna njaboot gu góor ga nga fa bàyyi am nañu cër ca la nga fa bàyyi njaboot gu jigéen gi nga fi bàyyi am nañu cër ci la nga fa bàyyi lislaam daal di nekk diggante jaahiliyatul ula wal jaahiliyatul muasira ndax jaahiliyatul ula ndax jaahiliyatul ula ceddo gu njëkk gi avant yonent bi xamuñu woon jigéen guy doom lislaam ñëw ni wali nisaai nasibu mimma taraka alwalidaani wal aqrabuun waaye jaahila gu moderne gi nag mooy jigéen day dond waaye na tolle ak góor yàlla ni déet sama àttee tëddeewul noonu nekk ci diggante jaahiliyatul ula wal jaahiliyatul muasira mbokk yi kon borom bi subhaanahu taala moom moo wàccee ay aaya leeralal ñu ndaka lañu war a ci aayaat yu bare bare bari mbokk yi kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax ndax lislaam ci miraas dafa am ay xasaais fi nizaamil miraas fil islaam maanaam héritage ndono miraas ci lislaam dafa wuute ak yeneeni diine yeeg yeneeni kuréel yi ni ñu gisee miraas ndax dafa am ñetti particularité yu am ci miraasum lislaam ñetti particularité ba ca njëkk mooy nizaamum rabbaani mooy miraas ci lislaam tëraliinu yàlla la fan ngay fekk ci ban diine ci ban doxaliinu àdduna ngay fekk ñu ni lii tëralin la boo xam ni yàlla moo ko tërale nii ci miiraas nga koy fekk yàlla subhaanahu wa taala def ko muy nizaamun rabbaani borom bi tabaraka wa taala moo ko tëralal boppam muy benn particularité boo xam ni ñeneen ñu amuñu ko ñaareel ba muy annaha nizaamun shumuli tëralin la boo xam ni yàlla beddiw ci kenn tey boo demee ci yeneen diine yi ak yeneen gis yi ni àdduna yi da ngay gis koo xam ni day am ay milliards ni sama milliards yi su ma génnee àdduna muus mii ma yor ci sama kër gi moom laa ko may yaakaar naa yéen ñi gëstu yëpp xam ngeen loolu te pourtant sañu ñu koo dindi yàlla xam na ko bu ngeen gëstu woon deen gis ni tubaab yi li ëpp ci seen alal dañuy yor milliards yu bari lool mi su ma génnee àdduna sama muus mii mooy donte sama milliards yi te day am ay doom am ay jabar kenn sañu koo dindi waaye yàlla subhanahu wa taala ci miraasul islam mu def ko muy nizaaman shumuliyan mu def ko muy tëralin boo xam ni ku ca war a am àq yàlla dana la ko jox boo génnee àdduna ko ñetteel ma nag mu teg ko ci nizaaman aaridi muy tëralin bu maandu tëralin bu maandu foofu nag mooy mbir mi borom bi tabaraka wa taala ci miraas daf koo tëral tëralin bu maandu ca bu ñu duggee tuuti ci wàllu xutba bi dinañ gën a gis ni lislaam dafa tëral miraas mu nekk tëralin bu maandu moo tax demaat leen ci aayaat yi farataal euh, miraas ñetti aaya rek la ci ci ci sóoratu nisa waaye booy seetlu aaya yi bu ci nekk buy jeex yàlla da koy jeexale benn baat ca alquran ku gis munaasaba bi alquran di waxee di nga xam ne baat bu yàlla jëfandikoo rek am na xikma bu nekk ci ginnaaw lu tax ñetti aaya yi wax ci miraas yépp bu yàlla dee jeexal aaya bi day wane ni yàlla day wane ni man dong maay ki am xam-xam loolu la yàlla di jeexalee ñetti aaya miraas yépp ñu jàng aaya bu njëkk ba boo koy jàng ba muy jeex yàlla day wax faridatun min allah inna allaha kaana aliman hakima nga jàng ñaareelu aaya ba mu dem ba koy jeexal ni wasiyatun min allah wallahu alimun hakim nga jàng ñetteelu aaya ba mu ni yubayinu llahu an lakum bi kulli shayin bu yàlla ci miraas buy jeexal mi ngi wax ni man yàlla maay ki xam de yéen seen bakkan ngeen topp waaye di xamu leen lu xew dafa mel ni bu buñ koy gëstu da gis ni njariñu miraas ba ca njëkk ca ñu war koo jàng ñun ñépp mooy miraas daf ñu bëgg a jàngal ni kenn amul alal waaw kenn amul alal de ndax loolu julli ñaa ngi koy bàyyi xel al maalu maalullah al muminu aw al insaan mustaxlafun fi l maal walakin al tàmma amul kenn nu ko am alal mbokk yi nañu seetlu rek bu fekkoon suñu alal yi ñoo ko moom waaw balaa ngay génn àdduna bu la neexee doo jël sa alal jox ko ku la neex bu doon yaa ko moom dangay xool sama doom bii kat sama xarit la xaaral ma jox ko sama alal ji lu ma neex diw sama xarit la diw sama nàngam la bu doon yaa moom alal ji balaa ngaa génn àdduna bu la neexee nga séddale ko ba mu jeex waaye alal ci lislaam du moomeelu kenn moomeelu yàlla la yow jullit bi dañ laa dénk alal ji ndénkaane la de foofu lañu bari di juume da nga yor alal yaakaar ne yaa ko moom déedéet jullit amul alal jumu moomal boppam dañ kaa dénk alal soo demee ba ruux ko jëmm ji ah lii nag dama la koo dénkoon comme dama la koo dénkoon ca mënatoo amatoo talatoo xaaral ma jël li ma la dénkoon maa koy wax ña ko war a ña ma koy dénkaat teg ko ci seen loxo man yàlla maa koy wax yow du yaa koy wax ndax moo soo ko moomoon yaay wax boo génnee àdduna ñan ñoo ko war a doon wallahi bari na borom alal boo xam ne bu doon coobaree bakkanama alalam xañ na sax njabootam duñ ci jot am na ñoo xam ne suñ soon seen coobare bopp seen alal benn nit lañ koy jox ndax kooku am na lu ñu séq moom bu yé ba tax ñu yéene ko alal ji waaye yàlla ni leen alal ji moomu leen ko boo leen génnee àdduna man maa leen ko joxoon man maay wax alal ji ñan laa koy teg ci seeni loxo kon li lim ñuy jàngal ci miraas mooy alal alalu yàlla la doomu aadama bi wala julli dañ ko dénk alal rek mbokk yi bu ñu dellu soo si miraas da ngeen di gis nii léeg-léeg ngeen gis noonu lislaam yi ci point miraas dañuy faral di jaar di wax ay baat yoo xam ni yu teg teggiiniwul la jëme ko ci lislaam baat yoo xam ni léeg-léeg am na borom mi xam-xam wala bokk ay jullit ñoo xam ni sax pour ñu layal ko léeg-léeg day xaw a jafe da dégg ñu naan miraas daa mel ni jigéen ñi leen leen ca jox xaw na doy waar ndax dañuy jox góor ñaar jigéen benn ko defee nag borom ah ñi nga xamante ñooy noonu lislaam yi commencé jaar ci ndal boobu waa lu tax ñuy jox góor ñaar jigéen benn ndax mbokk yi dëgg dëgg dëgg dëgg miraas noonu la góor ñaar jigéen benn déedéet xañ na sax njabootam duñ ci jot am na ñoo xam ne suñ soon seen coobare bopp seen alal benn nit lañ koy jox ndax kooku am na lu ñu séq ak moom bu yé ba tax ñu ko alal ji waaye yàlla ni leen alal ji moomu leen ko bu ngeen génne àdduna man maa leen ko joxoon man maay wax alal ji ñan laa koy teg ci seeni loxo kon lislaam lim ñuy jàngal ci miraas mooy alal alalu yàlla la doomu aadama bi wala julli dañ ko dénk alal rek mbokk yi bu ñu dellu soo si da ngeen di gis nii léeg-léeg ngeen gis noonu lislaam yi ci point miraas la ñuy faral di jaar di wax ay baat yoo xam ni yu tegginuwul la jëme ko ci lislaam baat yoo xam ne léeg-léeg am na borom xam-xam wala bokk ay jullit ñoo xam ni sax pour ñu layal ko léeg-léeg day xaw a jafe dangeen ngeen dégg ñu naan miraas daa mel ni jigéen ñi leen leen ca jox xaw na day waar ndax dañuy jox góor ñaar jigéen benn ko defee nag boroom ah ñi nga xamante ñooy noonu lislaam yi commencé jaar ci poroxndol boobu wala lu tax ñuy jox góor ñaar jigéen benn ndax mbokk yi dëgg dëgg dëgg dëgg miraas noonu la góor ñaar jigéen benn déedéet miraas noonu di du ñaar jigéen benn miraas ci lislaam dafa bari ay xaalaat yu baree baree bare ku génn àdduna soloon ña nga fa bàyyi na mu mel noonu la miraas ma di tëdde ndax xam ngeen ni ñeenti xaala dong ci lislaam moom la góor di amee ñaar jigéen am benn ñeenti xaala dong la ñeenti situation yoo xam ne bu nit ki génne àdduna bàyyi situation bu mel noonu ci wàllu njaboot ak wàllu mbokk dañ naan góor ñaar jigéen benn mën naa ci joxe benn exemple ki génn àdduna bàyyi doom yu góor ak doom yu jigéen su boobaa doom yu góor yi ñooy jël ñaar ñaari cër la ñuy jël doom bu jigéen bi jël benn cër loolu nag dañ indi xutba spécial lu tax yàlla ni bu boobaa na góor jël ñaar jigéen jël benn dañ ci def xutba insha allahu ñeenti xaala la du juróom du juróom benn mbokk yi ma bett leen nag xibaar boo xam ni ñu bare bare bari xañ na tey lañu koy njëkk a mooy ndekete am na fukki xaala juróom ci miraas yoo xam ni ku jigéen ki mooy ëppale ku góor gi fukki xaalaat juróom yoo xam ni nit ki day génn àdduna bàyyi fi ay góor ak jigéen ku gu ma ni ku jigéen ki ëppale ca miraas ma ku góor gi mën naa ci joxe benn misaal waaye ngi nii bu génn àdduna bàyyi benn doom bu jigéen bàyyi papa bàyyi yaay loolu rek la fi bàyyi benn doom bu jigéen papaam ak yaayam su boobaa miraas bi nan lay tëddee su boobaa doom bu jigéen bi dañ koy jox xaaju alal ja bu doon 2 millions la benn million bi doom bu jigéen pourtant papa ngi fi de góor la de moo jur ki ñuy donn de. waaye sëñ jël xaaju alal ji doom bu jigéen bi mooy jël nisf nisf ba lay jël ñu jox ko xaaju alal ji ñu daan yaay ji kaay yow un sixième ngay am ñu jox ko sudus daal di jël baay baay bi jox ko un sixième muy sudus su alal ji de desee nag la ca des ñu joxaat ko papa ji mu nekk taxasib mais mën ta des mukk ba desaat lu ëpp un tiers ca alal ja ca léeg-léeg mën na faa bañ a desaat dara nga gis ni kooku benn xaalaa ngi noon boo xam ne jigéen toog na góor toog jigéen ëppale ko ca miraas ma ma joxaat beneen misaal boo xam ne sax moo gën a doy waar ndax misaal bii ma leen di waaj a jox moom sax jigéen day ñëw foofu dàq góor ni ko doo fi doon man maay doon man jigéen ki yow ku góor ki doo doon. loolu moo gën a yéeme lii dina tax képp ku dégg lii dina buñ nee lislaam daa desal ginnaaw jigéen ñi ne déedéet lislaam kay daanaka miiraas ndax fukki xaalaat juróom laa la wax sànq yoo xam ni jigéen day dond lu ëpp li góor di dond waaye kaay fukki xaala yeneen fukki xaala yeneen fukki situation yoo xamante ni jigéen day ñëw éliminer góor góor du dond jigéen kese mooy dond moo la ci doon jox misaal nit ki génn àdduna bàyyi doom bu jigéen bàyyi sëram bu mu bokkal ndey ak baay bàyyi frère bu mu bokkal benn papa nan la miraas ma di tëdde doom bu jigéen la bàyyi ak sëram bu mu bokkal ndey ak baay ak frère bu mu bokkal benn papa su boobaa miraas ma ne muy tëddee mooy dañ naan doom bu jigéen bi yow da ngay jël xaaju alal ji nisf bi yaa ko moom ñu ni eh, euh, Euh, sœur bi na ñëw jël beneen nisifu alal ji ndax sœur bi mu bokkal ndey ak baay day éliminer sœur bi mu euh, frère bi mu bokkal papa sœur bi mu bokkal ndey ak baay éliminer na frère bi mu bokkal benn papa dutul dond ndax sœur bi fi taxaw te bu fa sœur bi nekkul woon frère bi day dond ñoo bokk benn papa waaye dutul dond kan moo ko xañ ndonali mooy euh, sœuram boobu càmmañam bu jigéen boobu wala moom moo ko xañ ndono loolu loolu li liñ ci bëgg a wax mooy mu nekk loo xamante ni l'islam lu mu teg rek da koo teg ci maandute waaye da koo teg ci dëgg kenn jàpp ni miraas góor ñaar jigéen benn la dañoo desal ginnaaw jigéen ak déedéet déedéet yàlla subhanahu wa taala misaal bu nekk wala situation bu nekk ak na mu ko réglé li des ci waxtu wi mu néew mu bari nag ñu bëgg ci waxtaan ca loolu moo nu gënoon yitteel yàlla xam na ko ci xutba bi mooy problème mu miraas nag ci Sénégal problème mu miraas moom ci réew mi ah ñun ñi nga xam ne léeg-léeg ñu woo ñu ci miraas moom saa yu ñu nee kaay ñu miraas suñu fi di lay dem ndax boo demee da ngay fekk ñoom miraas nañ ba pare nañ lay woor rek ngir nga seede waaye dëgg-dëgg miraas loowuñ la booy ñëw ci miraas bi yow fekk nga ñoom ñu tëral la ñuy tëral ba pare séddale ko nañu ko bëggee yow ñu nga ñëw ñu daal lay jël comme témoin loolu rek la daanaka waaye kenn miraasatul néew na bokk imaam bu dem fenn wala borom xam-xam di miraas nit ñi ñooy miraas nañu bëggee miraas ma demee problème yu dul yu jeex ci miraas mbokk yi mën nañ cee tudd li tax miraas am jafe-jafe ci Sénégal gis nga jafe-jafe ba ca njëkk mooy tasaahul kasir mina naas bil wasiya mu àdduna doom mooy jóge fële yàlla bu mu doon taaw bi ne ah man nag place bee ca Colobane wala place bee ca Sandaga man la fi paa bi tegoon waaye man ak moom dañ doon liggéey di séddoo ñoo bokkoon place kan mooy dëggal kan mooy wedd jabar ju ndaw ju jóge fële ah man nag góor gi dafa ma mayoon terrain ba nekk Kër Massar kan mooy dëggal kan mooy wedd andi nga jafe-jafe ci sa ginnaaw ndax yaa waroon a bind wasiya bindoo ko yaa waroon a wax ni lii maa ko moom lii maa ko moom lii man ak diw ñoo ko bokk rawatina bu dee da am sa njaboot yoo bokkal alal wala sa soxna yoo bokkal alal bind ko wutal ay seede mu leer ni diw mii sa soxna la wala sa doom la alal sàngam yi na ko bokk loolu nag la ñuy négliger moo tax soo demee ci miraas problème yooyu mooy njëkk a am da ngay gis ko jógee fële rek daal ni man paa bi moo ma mayoon nangam te loolu sax ñàkk xam la ndax yonent bi leeral éliminé na loolu bu yàgg laa wasiyati li waaris mu jeex tàkk ku war a doon du kenn du la may dara ci alal ji papa ji am na droit buy génn àdduna may ay xaritam may ay dëkkandoom ba mu ba bu mu weesu ceeru alal ja waaye amul droit may kuy doon yonent bi nee na kuy doon kenn du la may ci ci defal ma ce léeg-léeg nga gis lu bëree bëri sama papa moom mayoon ñu la déedéet yonent bi nee na laa waar yi waarisin yow da ngaa war a dondu kon amoo benn may wala testament bu ñu lay defal du soxna du doom du kenn ci ñu war a doon ñaareel bi ci jafe-jafe miraas mooy adamu qismatil miraas ba'da wafaatil mayit nit day génn àdduna au lieu kon ñu miraas ko ñu naan nañu xaar 40 jours ya 40 jours ya jàll nañu xaar ba soxna si teen ji ba summi soxna si teen ji ba summi ñu ne naan xaar nangam six mois jàll naa jàll léegi léeg nga gis fi ku génn àdduna bi def lu ëpp dix ans kenn du ko miraas subhanallah problème bi gën a jafe-jafe-jafe ci miraas mooy miraas mu ñu yeexe ndax la cay xew mooy bare ña waroon a doon day am ku génn àdduna bàyyi fi problème bu dul jeex beneen bi mooy li ci gën a metti mooy loraange yi ci am foofu mooy jafe-jafe dëgg ci miraas ci Sénégal ndax nit bu génnee àdduna alal moom moo tàkkulu na trois sacs lan la ma alalu noonu du alal ku nekk yaa war a wuti nag loo xamante see fu bopp la kër gi góor gi moo ko fi bàyyi woon génn na àdduna am na yeneen doom yi dëkkul ci kër gi pour ko pourquoi nga bëgg a dëkk ci kër gi ana yeneen doomu góor gi ndax ñoom amuñu cër ci kër gi dañ fi war a dëkk nga ni kenn du miraas parce que suñu miraas da ngay kër gi. nga ni kenn du miraas ndax place bi benn place la ca man maa ci nekkoon suñu miraasee du ma arrangé ba tax na nga bloqué miraas bi kenn du miraas parce que alal ji bëggoo mu dem parce que bëggoo génn kër gi mais yow kër gi nga dëkk du sa kër dañu war a miraas daa am ñu ci am àq nga ñëw dëkkee kër gi lu mat juróom benn weer lu mat at lu mat ñaari at waaye yow dëkk gi nga dëkkee kër jàmbur ndax xam nga ni ci kër jàmbur nga dëkk ndax xam nga ni yeneen doom yëpp dañ cee am àq est-ce que waajal nga pour seen àq boobu nga fay leen ko loolu bokk na ci problème moo tax lu mu metti metti rek ba li may gën a dégg Sénégal këru famille la kenn du ko miraas yàgg mu yàgg dañ koy miraas lu mu yàgg-yàgg bàyyi leen xel ni yow mi wax loolu sa sët ëllëg bàyyil xel juróom fukki at ci kanam dina am sa benn sët bu màgg dégg ñu ni sama amoon na cër ci kër gi yow kooku da nga ko mën a teree day ñëw ne damay jël sama wàllu maam sama maam kat moo fi bàyyi woon bi mu fi bàyyi sama baay mi ngi doon dund sama baay amoon na cër ci kër gi sama baay génn na àdduna man sët sama cëru baay boobu dama ci am cër kon kër gi nañ ko miraas wallahi loo ko daw daw daw lu jamono yàgg-yàgg ci miraas lay mujj kon jarul daw ku génn àdduna nañ def li yàlla santaane dañu miraas sa alal ñetteel ba mooy waajur yu bari ñooy indi problème seen miiras ca mooy jël seen doom jox leen loo xam ne teguñu ko fenn yow yaa ma diggal yaa ma topp ba ma metti yaa may topp topp may feebar kon sama alal ji may naa la ci nangam déedéet amoo ci droit booy dund dara jotul am nga droit maye mais booy maye danga koy teg ci maandu. booy may da nga koy teg ci maandu Nu'maan ibnu Bachir sahaaba yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam benn bés papa ji di Bachir dañu ko yaa Nu'maan mu ni ko naa mu ni ko dama kontaan ci yow lool sama toolu tàndar ma bële yow laa ko may yaay ji comme ku dégg diine la yaay ji ni ko ah ndax loolu mën naa nekk mu ni ko maa ko moom may naa ko ko mu ni ko duma ma ko nangu mukk lu dul ni yonent bi da koo seede kaan dem ci yonent bi papa ak yaay ak doom ñu ànd dem ci yonent bi ndombaan ni ko sama papa ji moo ma may ab te ab toolu tàndarma sama yaay ni balaa ñu koy dëggal faawu nga seede ko yonent bi ni ko ndax toolu ma boobu nga ko may sa yeneen doom yi noo leen def mun kaa ah, sama yeneen doom yi dama jox ma leen dara yonent bi ni ko duma seede ndëng mukk ci àdduna ci lay waxoon waxam bu siiw boobu ni ittaqullah wa adilu bayna awlaadikum ragal leen yàlla ci ngeen maandu ci seeni doom andu leen ci kon loolu bari na papa yu indi problème bu mel noonu ca mooy may sa doom benn doom jël koo jox koo ca alal jëlu bari bu génn àdduna sam papa moo ma may nangam moo ma may nangam loolu tegewul fenn ba ci des mooy euh, euh, euh, di def yaakaar ni day régler problème ca day gën mooy lan mooy miraas sa bopp balaa ngaa génn àdduna jafe-jafe yu bari loolu moo koy indi nga yaakaar ni li nga def lu baax la fekk indi nga jafe-jafe bu rëy. yow lañ te jublu mooy defar waaye nit mën ta miraas boppam nag ndax sart ba njëkk ca miraas mooy faaw kii miraas génn àdduna yow génn ko àdduna yow génn ko àdduna nu lay doon doon kenn mënu laa doon kon amoo droit séddale sa alal yow da ngay séddale donc néeg bee wala pantre bee yaa ko moom place bee jox naa ko sama kër nga séddale ba yaakaar ne yaa ci nekk nga jàpp ne miraas nga sa bopp miraas sa sa bopp de loolu nga def l'islam daf ko condamné ndax xamoo sa bakkan fu muy yem waa boo mayee sa doom bii kër gi sa doom bi njëkk laa génn àdduna su boobaa donduloo nga alal ji ku ko warul dond ndax doom jo sa doom jooju génn àdduna jabaram day dond kër googu ay doomam dañuy génn sa ñooñu amuñu àq ci alal jooju waa loolu yëpp ci dara xew soo séddalee sa alal dundaat ñaari weer donc mën na am valeur ba changé na ndax ka nga jox kan euh, kilifa yi di def yaakaar ni day régler problème te day indi problème mooy lan mooy miraas sa bopp balaa ngaa génn àdduna jafe-jafe yu bari loolu moo koy indi nga yaakaar ne li nga def lu baax la fekk indi nga jafe-jafe bu rëy yow la nga jublu mooy defar waaye nit mënta miraas boppam nag ndax sart ba njëkk ca miraas mooy faaw ki ñuy miraas génn àdduna yow génn ko àdduna yow génn ko àdduna ñu lay doon doon kenn mënu laa doon kon amoo droit séddale sa alal yow da ngay séddale donc. néeg bee wala pantre be yaa ko moom place bee jox naa ko sama kër nga séddale ba yaakaar ne yaa ci nekk nga jàpp ne miiras nga sa bopp miiras sa sa bopp de loolu nga def lislaam daf ko condamné ndax xamoo sa bakkan fu muy yam waa boo mayee sa doom bii kër gi sa doom bi njëkk génn àdduna su boobaa donduloo nga alal ji ko warul dond ndax doom jo sa doom jooju génn àdduna jabaram day dond kër googu ay doomam dañuy génn sa ñooñu amuñu àq ci alal jooju. waa loolu yëpp li ci nar a xew soo séddalee sa alal dundaat ñaari weer donc mën na am valeur ba changé na ndax ka nga jox kanting place te jox kanting place te ñaari kanting yi ci ni réew mi di doxee balaa ñoo def un mois deux mois ñaari valeur yi changé na su boobaa maandu te amatul ndax jox nga kee lu ëpp la nga jox kee moo tax nañu bàyyi yàlla ak ni mu séddalee rek kenn amul droit di séddale sa sa alal balaa ngaa génn àdduna bañ ciy jeexale ndax xam naa yëpp mënuñu ko wax mooy rek euh, jafe bu bari buy faral di am ci miraas mooy taaw ndax taaw yi moom dañu yaakaar ñoom moom alalu paap wala meer sa waajur génn àdduna taaw bi mooy ñëw toog mooy séddale mooy décider wallahi loolu mbokk yi lu doy waar la ci wàllu miiras gis nga lislaam àgg na ci bu nit génnoon àdduna bàyyi soxna bu ëmb lislaam danaan ah ñaari mbir ñaari choix ngeen am ya immaa ngeen bàyyi ba yaay ji am doom ñu xool góor la wala jigéen ñu jox ko cëram wala bu fekkee da ngeen a yàkkamti ngeen miiraas waaye bàyyi leen fi cëru góor su su génn su su juddoo di jigéen la ca des ngeen séddoowaat lan moo tax ndax taaw bi am fanweeri at ñeent fukki at juróom fukki at moog liir bi juddu tey amagul semaine ñoo yem kottu ci alalu góor gi ëpp ko ci benn sañ-sañ lu tax euh, taaw bi bëgg a taxaw rek ni mooy séddale imposé wu nag daanaka miraas moo dem taaw bi mooy taxaw imposé wu man maay jënd kër gi yow yaa jënd kër gi fan nga ko teg. yaag liir bi yam yéen a yam ci kër gi sañoo taxaw ni maa jënd kër gi foo teg ni yaay jënd kër gi ndax yaay mag déedéet yàlla séddalewul noonu li zakari mislu hazzil unsayayni rek la yàlla wax mu jeex tàkk li rijaali nasibun mimma tarakal waalidaan yàlla néewul ku mag yaay jël nangam ku tuuti yaay jël nangam ku mag kee ndaw ki ñu dem ci miraas mi kon taaw bi sañ ñëw di imposer ci kër gi di wax ni man maay jël nangam wala maay jël nangam lépp dañ koy teg njaayu miraas amul ñu bëggee jël kër guy jar cent euh, trente millions wala quarante millions taaw bi bëgg na koo jël rek ñu waxtaan daanaka nañ ko def njaayu miraas waaw ñu daal di xool ne nañ ko def cinq millions njaayu miraas njaayu miraas amul di yaa ngi lor yeneen nga xam ne seen i doom nga war a jël kër gi jox ko benn taaw boo xam ne amaana moo tane woon sax moom ma ngay kër ci kër ci kii ay doom yu ndaw lañ am nga jël fexe ba lijjanti ca léeg-léeg imaam bi moo koy def ndax xaritu waaj la wala dëkkandoom la fexe ba lijjanti ba nga xamante ni nii dañuy évaluer kër gi ci anam bu jaarul yoon suñu paree taaw bi taxaw léeg-léeg sax du am di rëmbum ca def danaa maa leen yoreel ñëpp génn xajal ko kër gi loolu musiba la il faut que ñuy miiras ñu ànd ak fu ju mat sëkk ngir nekk mën a jot sa àq suñu ko deful rek loraange ju rëy rëy rëy rëy lay jur ñuy jégalu ci guddal bi yàlla yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp in uridu illa al islam astatatu ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullah